bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima salaatan wa salaaman wa barakatan taquudu biha li cheikh alqadim alqaa'il yabustum tiddaaqi jumlatan xaazaha annabi min annafaci wa huwa albahru sul jalbi wa nafi mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu nuyób jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyób taalibe ak mbokkum taalibeem di ñaanal cheikh mohammadul muntaka sunu borom yàggal ko fi yokk kàttanam ba mu mottali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasul te mu ànd kook mbooleem njabootug sëriñ Tuuba gépp mbooleem njabootug seexi sëriñ bi ak kilifa dina yi ak taalibe yi di siyaare bu baax sëriñ Muhammadu Ngom ñing ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def di ko joyal ci Sayxul Xadim bi ñaan sunu boroom may ko kattan ak xiiwal ba mu eggalee noonu la ñuy siyaare mbooleem ñi nga xam ne ñooy topp jataay yi seen mbokkum taalibe Cheikh Njaay Gànna fas yéene ànd ak yéen ci lenn ci jataayi sëriñ bi bismillahi sëriñ ali njaay mbay radiyallahu taala anhu nee na sëriñ tuuba xaadalahu llahu maxtaralahu mas na ubu maanaam tëju walla fatu lu yàgg lool mag ñi namm ko lool waaye dañu daan def boo xamee ne ubbi na dañuy ñëw ci bëkk néeg yi kees yi nga xam ne caabi yi ñu ngi ci seeni loxo dañuy xam ne sëriñ bi nekku ci su ko defee ñu leen koy ubbil ba àgg ca kees yi nga xam ne bunt yi sëriñ bee ko dellool boppam su ko defee ñu toog ca kees googa di waxtaane ak mbaaxam ngir yëglu waaye kenn du sañ dem di yëglu ci moom bis boobee nag sëriñ Aliou Ndiaye Mbaye radiyallahu taala anhu nee na kookee ma fa daan yóbbu moo ma fa yóbbu bi ñu toogee di nékkandiku ba mu yàgg sëriñ bi ak nu maanaam jublu nu booba seng wu dër wu ñu taqale mu jëm kaw moo dox sunu digg ak moom sëriñ tuuba xaada loxo laaxu maxtaara loxo ne ana nekk fii ànd ki fëgg sëriñ maleen kànji radiyallahu taala ne ko ñun sa ñoñ ñoo fi nekk sëriñ tuuba xaada loxo laaxu maxtaara loxo ne ay nit ngeen am ay jinne ngeen wala ay malaayika ngeen wala lu ngeen doon mu ne ko ñun mbakke ñooy sa ñoñ yi nga xam ne yaakaaruñu ku may yow sëriñ bi ne néggandiku leen jekki ba mu yàgg lool mu ne ubbét bunt ba yëgsi ne mbaa jàmm ngeen ñu ne ko jàmm rekk Mbàkke sëriñ Tuuba xaadaluxo laaxu max taraluxo ne danaa wax ak yéen kàddu yoo xam ne mësuma koo wax ak yéen te it miinuñu ko wax te mu am lu tax ma bëgg leen ko leeral waxtu wii ma leen doon dégg fii di ñëw ci yéen tolloon naa ca saa borom foo xam ne mënuma woon agsi ci yéen jàkkaarloog yéen ndax su ma jàkkaarloo woon ak yéen seenu dund du mën a dékku seenug jubloog man ndax booba tollu naa foof ci saa borom subhanahu wa taala kookee ñuy wax góor mag te du tàyyeel du noppalu du toqe te saa bu ma jaxasoog saa borom subhanahu wa taala mu ñëw ba fi man di ma diglu kookee laa doon futtiku kookee nag ba ma ko ne kookee kan la mu ne ma man la góor mag ma ne ko loo fi wut fii waxuma lu wér ma ne ko ay ca toppal sama baram bi daw na ba fenq maanaam laal ndox ci gii géej daw ba fenq ci gii géej walbatiku dellusi di nokket ma ne ko kooku kan la mu ne ma man la góor mag ma ne ko du dama ne la woon toppal sama baram bi mu ne ma ba nga ma ko waxee def naa ko yaari géej yi jàkkaarloog penkook sawu ku ci ne egg naa ko ñaari géej yi jàkkaarloog penkuk sawu gu ci ne egg naa ca waaye dama am sama ñetti ëmb yoo xam ne maa ko moom soo ko jëlee it ma xam ne yaa ma ëpp doole fab ko rek waaye maa ko moom soo ko bàyyeeg man ma yóbbu ko ma ne ko soxlawunu sa dara sa dara it woowuñu ko nun li nu yitte woo nag li nga mën a am li nga yor ana muy lan mu ne ma lii day boo ma ko joxee maa ko moom boo ma ko joxul maa ko moom sëriñ tuuba xaadaluxu laahu maxtaaraluxu ne ko loolu lu mu mu ne ma mu kallaf mu nanguwula jaamu yàlla subhanahu wa taala ndaw lu toll ci liggéey te nanguwuta liggéey maanaam ndaw lu góor lu nanguwuta liggéey jigéen ju nanguwuta sëy te toll ci soo ma ko joxee maa ko moom soo ma ko joxul maa ko moom ma ne ko fab ko te wéy maanaam jëlal fab na ko te dem naag moom sëriñ maleen kanji radiyallahu taala ne bëret ne ko mbakke loolu bu amee dana gën a yaatu te dana dugg ci sa ñoñ ba dana la yàqal loo xam ne nii dana rëy lool moo mbakke fii nga xam ne ci sa wet mbooleem lu fi nekk yaakaar laa ko fi andi sëriñ tuuba xaadaluhu laahu maxtaaraluhu ne ko ndaxam wax nga dëgg ndaxam wax nga dëgg ne bërët ne yoxoos maanaam dugg bu gaaw ca bunt ba ne ko ràpp maanaam tëju kon mbokk yi noo ngi leen di jox dig daje ëllëg incha ci seen beneen jataayu sëriñ bi ak seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana képp koo xam ne bëgg nga xam bu sëriñ Tuuba xaadalahu laaxu maxtaaralahu ubbee lan lay wax ci lii nga xam ne joxoon na ko góor mag toppal sunu jataay bii di ñëw altene incha allah di leen fàttali waxi seex muhammadul fadilu mbakke yàlla na sunu borom subhanahu wa taala yokk ay leeram te tax ñu ci barkeem daana wax ne sunu waa ji ñépp ko bëgg nun képp ñoo ko am wér na Cheikh Abdul Ahad Mbakke yàlla na sunu boroom subhanahu wa yokk ay leeram te tax ñu ci barkeem daana wax ne gëm ak wóolu ak yaakaar Serigne Touba rek lañu koy def kon Serigne Touba kenn la Serigne Touba kenn la Serigne Touba kenn la moo tax sëriñ Moussa radiyallahu taala anhu doon wax ne karaamaaki xar baax ak wilaayaaki mbooti xol ku leen masa am sëlboo ku yow sëriñ tuuba ku yow dadaa sëlboo ka dëkkoo ka rekki ngëm di xalkee ka yàqantee ka fàttee ka roy tuuba nga yor yiita làmboo raxmatallahi yaa lewet li ngay muñ te man koo faj amum kem sëriñ tuuba ku lay sóoru def la réere boo gestu woon mu dee ndamul ut nga làmbi soo daanak bayaa diini ak tuuba gouverneur ya ak soldaar sax xam nan la baafali kumandaa ya ak kàngam ya xam nan la bis tuuba kajoor ak bawal siin saalum ak fuuta ak jolof ci say may lañuy baawaane yaay géej gu wër Tuuba ku lay tëkkalee xawsu moo réere ay mbiram ne moo tëdd bu xut xawsu seen leer yu wër Tuuba ku daa woote tey kuy kuylu tàllam ba fay na tey sa taal baa ngi dolle jolli faytil ba dem Tuuba ngirum tarbiyaa ngi xew ci sow jant yaa ko def pajub aajo yaa tax nit ku ñuul mos ko fi Tuuba ku ciy bañ a ànd ak bàmba xam naa da koo xamul ndax ku mbëgg sut leerub jant yéem naa sëriñ tuuba kamaalub rasulullahi mooy mat ga dudul sew matub sayidil kaw nay ni leen jox sëriñ tuuba giñoon naa ne yaay wuutaatu njol màkk ci defar ku koy sikki sàkkaa réere jagleeg sëriñ tuuba wér na lool wallahu a'lam